actualité brûlante euh, suñu xale yu jigéen final zone 2 fële euh, Sierra Leone Sendigante et Mali Nous Sénégal 1 à 0 c'est une euh, bonne information parce que dama leen trop Sendigante et Mali surtout que Mali di euh, Maroc 4-0 parce que xam nga Mali aptitude physique et athlétique tel loolu en première mi-temps en deuxième mi-temps bu match bi des technique tendre vers un match technique euh, les maliennes paraissent plus physiques plus athlétiques Sénégal bien technique très technique légui comme Sénégal résiste en première mi-temps à la fraîcheur physique et athlétique des maliennes suñu yu football bi comme résiste à la à la fraîcheur physique et athlétique des maliennes ba mené 1-0 Sénégal est mené 1-0 à la mi-temps deuxième mi-temps bi dañu war tendre vers euh, un match plus technique encore sous l'effet de la chaleur war nañ ci euh, di wax féliciter aussi euh, suñu junior garçon yi nga xamé ni dañ leen invité ñu dem gagner coupe Sénégal Sénégal dañ invité ci tournoi ci tournoi bi nga xamee ni euh, moo di euh, tournoi wu euh, pays arabe ci Arabie Saoudite Sénégal dem gagné ko xam nga buñ dul arabophone di arabophile kon yelloo nañu loolu suñ dul arabophone ñun Sénégal di arabophile lu may wax ci noonu njàngum arab bi mokk na fii rax ci dolli euh, mus nañ dem ci benn dëkku pays arabe ñun perdre fa match contre euh, euh, ñoo xamee ni ñun ak ñoom dañu xaw dañu xaw sore ci wàllu religion dëkk boobu dëkku naar boobu gis ni ci équipe bu Sénégal bi ay Abdoulaye ci nekk ay Moustapha ay assan ay Abdourahmane ay Abdourahim ay Ousmane ñooñu mel ni ñii suñu parent lañu ñun ak ñoom ñoo bokk tur effectivement ñun suñu tur yi turu naar la suñu sant lañu moom tur yi turu naar la ñun Sénégal tur yi turu naar la Assane Moustapha Abdourahmane Abdou Abdourahim turu naar la Abdou Salam turu la sant bi moo di Sénégal ñooñu faral ñu kon Sénégal bu demee ci tournoi euh, pays arabes yi gagner ko té kat dañ ko invité dañ ko invité pour mu motali man le Sénégal def nañu yëfu Danemark bu 92. Danemark bi muy gagné l'euro 92 dafa fekk Yougoslavie nek en pleine guerre ñu génn leen ci tournoi bi daldi ni Danemark kaay remplacer Yougoslavie Danemark ñew gagné tournoi ba ñun tamit dañu wo pour ñu remplacer Nous ñun kan lañu euh, gagné matul won ñu daldi di ci ñi dul kan moo leen gën a jege ñun ak Soudan ñu leen gën a jege Sénégal ak Soudan ñu jege pays arabes yi lañu waaw senegal ak sudan ñu jege d'ailleurs boo demee euh, Màkk soudanais yi ak soudanais yi ñoo fay nekk euh, ci euh, liggéeyu biir kër ak mbedd ñoo fay làppato soudanais yi ñoo fay làppato soudanais yi ñoo fay bindu waaw Euh, euh, gisoo Soudan mook Égypte presque un euh, drapeau benn couleur la Soudan ak Égypte alors Quand nous avons gagné tournoi dafa mel que féliciter Issa Aydara adjoint Youssouf Dabo moom Issa Aydara adjoint Yusuf Dabo dem Issa Aydara gagné tournoi bi gagné tournoi bi maa ngi koy lire tout à l'heure ci net bi ci élégance am ci net bi mu ni Youssouf Dabo daf ko bàyyee coup de franche mais n'empêche dañ doon waxtaan et là Youssouf Dabo euh, a bien joué le jeu parce que bu Issa Aydara nekkee foofu ci équipe bi moo xam ku feebar moo xam ku blessé waaw le 11 moom mi dëkk ak joueur yi di ndekkeeg na ñoom di añandoog ñom di reerandoog ñom di fanaan ak ñom di dem entraînement ak ñom xam nga lélé le onze qui joue fof lay dégagé woo lélé sax tel médecin indique ni la médecin bi dik ni la attention hein, tel joueur est blessé mais daf koy neub gis nga lélé classement bi balay balay bala ko entraîneur bi di défar laaj médecin bi médecin bi moo di le dernier homme bu muy consulter médecin bi euh, euh, amadi ci sa écran bobu ci sa kanam nga jappal ma ci jigéen ñi dégg match Sénégal Mali final IFOA Dambi mi-temps ñu Sénégal le mené 1-0 nga nga ma ci xolal ko man aw ma ko ci studio bi yow nga non non non non non bàyyil ma xool ci studio bi leneen yow jëlal nous ñu séddoo waaw yow yow topal ma sénégalais yi ak Mali dañu mi-temps Sénégal le mené 1-0 alors j'étais donc à Youssouf Dabo et à Issa Aïdara donc le 11 bi attaqué match bi Issa Aïdara mi nek ak ñom je suis dégagé Youssouf du ko ni mukk dugalal kii génneel parce que boo demee ba sur les lieux la vérité du moment mi ngi sur les lieux comme comme comme Youssouf nekku fa euh, euh, daf koy bàyyeek loolu di waxtaan nag ak moom ci approche bi le Sénégal gagne euh, comme on dit le tournoi en Arabie Saoudite et comme les Sénégalais ont bonne presse avant ñu fay jóge nous ngi invité équipe cadette bu Sénégal ñu ngi les cadets sénégalais cadets sénégalais aussi ñu ngi Arabie Saoudite ah, naka jek Sénégal té xam nga euh, man entraîneur man entraîneur xam nga lu entraîneur ba dafa dul musulman c'est tout entraîneurs. entraîneur entraîneur bi ma proposé du musulman jëluñ voilà pour pour vous dire que ça compte Amna saoudien bu fi ñewon di di di di am rendez-vous avec un joueur saoudien bu fi ñew ñu tektal que joueur mu ñew ci kër joueur ba fekk que muy julli timis saoudien bi dafa aksi ci kër footballeur bañ ko tegtal mu fekk que muy julli timis saoudien bi tok di ko nekk mu ne ko yow duma la tester je te prends d'office tu es sérieux <laughs> tu es un bon joueur waji dafa don wut un bon joueur fekk kuy julli mu ni kii c'est un bon joueur gis nga de il a jugé l'homme parce que euh, le footballeur et l'homme se recoupent. L'homme somnole dans le footballeur. Le footballeur somnole aussi chez l'homme. saoudien Il dafa dugg ci kergi, qui ki sort soxla Ou ak moom fekk ko muy julli Mouni ki kii ma sax discuter ak d'office dama koy jël noonu la ko heureusement boole ci nag xale bi jox résultat parce que diine moom soo ko jiiteele rek dara jombatu la alors kon. Euh, euh, Sénégal bu gagné le tournoi des euh, euh en Arabie Saoudite ci ku ni kay mottali ñu mu ñëw gagné tournoi bi kay mottali ñu mu gagné tournoi bi légui ñu ni invité nañu Sénégal euh, toujours en Arabie Saoudite le football sénégalais a bonne presse alors ma ngi won ci félicitations yi pour Youssouf Dabo euh, ak ak Youssouf Dabo ak Issa Aydara mi ko parce que Youssouf demul mais là aussi c'est un vieux débat parce que euh, j'ai fait grise mine bi Youssouf Dabo pourquoi parce qu'il est aussi entraîneur de tenguech il est aussi entraîneur de Tengech. te Tengech bàyyiwu qui paye commande qui paye commande Wow. qui paye le salaire commande Tëngéej fala am salaire c'est d'ailleurs la deuxième fois je crois Youssouf Dabo a un problème je crois que am du temps de Guédiawaye avec le président de Guédiaway. mus am est-ce que Bobo sax demul après indi eu tribulation tu biir équipe de je crois que boobu dafa démoulé. mais s'est demul parce que sous n'est qu'un entraîneur et en club et en équipe nationale le problème ressurgit parce que le club qui paye commande mais l'élève aussi tu peux faire grismine quand le club dit non à l'équipe nationale quand le club dit non à l'équipe nationale parce que enlever l'entraîneur national, euh, enlever l'entraîneur national à l'équipe nationale, parce que celui-là est aussi entraîneur de club, le club de attention, parce que le club est soirée ëpp doole équipe nationale bi, hein, que nekk lu xaw doy ba comme je dis tout à l'heure l'entraîneur est protégé parce que ñi pas fay salaire ñoo soxla là aussi dafay toog alors je crois que c'est à voir est-ce que war nga nek entraîneur et en club et en équipe nationale un hein? ou équipe nationale bi wala su nek équipe nationale bi su soxla est-ce que entraîneur ou club am am droit bagn loolu yop comme on dit c'est à élucider Macoumba Beye arrive avec des informations. wa xamna doyen ñu cof la ñaari minute rek. ayca jëli Salif Sow. ayca xam point bi nga xam bis bu yalla sak mom la wa ministère euh, de la santé di def. Mm-hmm. Euh, ci jangoro yi coronavirus ji. Salif oui oui. Makumba <laughs> jërëjëf Bey jërëjëf. merci Makumba Bey euh, li moy RFM Hein, ah, radio bu nga xamé ni euh, ci lu ñuy yëngu rek ñu daal di leen ci fekk ndok yalla bu fekké ni euh, fay sujet d'utilité publique. kon merci ma Makumba Bey alors ñi ngi won ci actualité sportive bi naa dellu si ci suñu équipe junior bi nga xamé ni dañ ko invité ca Euh, football mu dem euh, mu dem euh, tournoi ba. Euh, dinañ ci delu si li ma doon tout à l'heure rek moo problème mu entraîneur parce qu'à ce niveau euh, entraîneur club entraîneur équipe nationale quand le club enlève l'entraîneur euh, l'entraîneur qui est aussi celui de l'équipe nationale, où se trouve l'ordre des priorités, euh, c'est tout aussi vrai que qui paye commande, qui fait salaire c'est moi priorité. Les les pas sa papa soxla sax,

euh, CNEPS. Hein, euh, marché bi depuis 17 ans sans doute on approche de la mi-temps euh, depuis 17 h parce que ci studio 17 h 40 42 minutes lay liir ci biir studio euh, c'est à à Amadou Bari Dakar Sacré-Cœur Gazasport Sport on me signale que Youssouf nga euh, Youssouf Amadou. Euh, bari Youssouf Bodian euh, bu nekkee en pole position ma fekki ko à au stade Ibrahima Boy, euh, depuis 17 h également Douane Mungi, Dajé, daje ak Mbour Petite Côte le reste du programme c'est demain dimanche Jambar Pikine jaraf Ñaari Stade de Mbour US Gorée Ndiambour Génération Foot match yi c'est demain dimanche dinañ ci tout à l'heure Amadi, quoi, am ci suñu reporter yi rek trois points yooyu à savoir Ngalandou Diouf Tengej Snaps Amadou Bari Dakar Sacré-Cœur Casa Sport ak Guédiawaye Ibrahima Boy euh, euh, stade Ibrahima Boy euh, Douane Mbour Petite Côte suñu mbokk RTS ñu len di euh, je viens de recevoir à l'instant génnu Adina, caméramanu RTS bu ñuy wax Doudou Fall caméraman bu RTS bu ñuy wax Doudou Fall mu faatu dembu ñu denc ko démb ci wakam. Euh, Makay Dial, euh, tous les parents et amis et confrères de la radio-télévision du Sénégal, du Reo. Euh, j'ai dit un jour à quelqu'un, la RTS est dans le paysage, ce que le Miami reste encore dans le paysage musical. Parce que musiciens yi du Miami La profession bi aussi ñu RTS la RTS Amétis, tiis euh, ci euh, biir kër yëpp yëpp yëpp yëpp waa RTS ñu leen di jàll dut faal bi ma yëg ni léegi à l'instant dafa génn àddina mon vieil ami Ibrahima Ndiaye Chita ancien capitaine de l'équipe nationale de Wakamoa ah, moo ma envoyé léegi information bi te naan ma dut faal était caméraman à la RTS aujourd'hui à la à la retraite euh, ñuy jàll mbokku Doudou Fall amagoo kenn ci gaañi ci reporter yi amagoo ah amadi Amago kenn kon j'en profite pour saluer suñu auditrice bi di anniversaire madame Sey Né mam Awa Cheikh Ndiaye Chambour... madame Sey di Mam mam Awa Cheikh Ndiaye joyeux anniversaire sa bi dafa jaar ci ku nga ni euh, dafa reuy trop ci kër à savoir Marie Justine dama Marie Justine Euh, euh, kii daal euh, tonton laay dafa di soppe kër gi day tëdd ci biir këram uuf rajo bi janoog TFM te nag tey di anniversaire am madame Sey ca Mbour maam Awa Cheikh Ndiaye joyeux anniversaire yal na nga ko def ba doyal yal na nga ko def defa def ba doyal man dey gisuma la mais jàpp naa la ndax suñu xarit bi ñu bokk di Marie Justine Jogo gisuma la mais jàpp naa la Marie Justine Marie Justine mi ma jox information bi te ma gis ni mu ko ni information bi rëy ci moom moo tax ci man parce que ko Justine jàpp rek danaa la jàpp kon joyeux anniversaire yan na nga ka def ba sa ay sët euh, di la ko feeteel euh, madame Sey mam Awa Cheikh Ndiaye joyeux anniversaire elle est à Mbour euh, ah Soda Thiam moo nekk Diouf Soda oui. mais mais Soda yow nag vraiment mën nga dribbler <laughs> mais Soda yow mën nga dribbler maa ngi nii maa ngi nii uuf programme mu basket bi daan dama koy annoncé léegi coq Soda. non <laughs> <laughs> accord kon kon tey yaa nekk Ngalandou Diouf ah. waaw maa ngi Ngalandou Diouf comme euh, euh, di euh, Mbaye ah oui d' nii la rek jogante bi ah très bien. voilà actuellement donc vous venez d'entendre Abdoulaye Diaw le coup de de ouais c'est la mi-temps ici à de Diouf entre Sengek FC et Céleste de Thiès. oui. et retenez que c'est Teungueth FC donc qui mène au score euh, par un euh, but à 0, but marqué à la 26e minute par l'entremise de euh, Baye euh, Diop Oui. Donc, on but à 0 pour euh, Tengue FC face à Tengue FC. Donc, Abdoulaye sans doute, qui va terminer champion de cette phase aller. Oui. Plus actuellement, donc, il a 30 points devant donc euh, Sacré-Cœur qui euh, a juste 19 euh, points à Diaw. Et aussi retenez que ce qui est a 9 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite. Aucune défaite. ce qui veut dire donc la seule équipe invaincue pour cette phase aller à Diaw. Voilà, merci Sodetiam Tenguech, meilleure attaque, meilleure défense. J'ai entendu tout à l'heure Malal Gagne. Oui, Doya bonsoir. Bonsoir Malal. je t'apporte une bonne nouvelle, le Sénégal vient de mettre son deuxième but. Ah! ah ah. à cinquante-septième minute de jeu. gis nga Malal. oui. da nga fekk léegi ma naan Makumba Bey ak Babacar Fall. sama xel dafa daal xam ma leen xam nga pourquoi. Mali ñoo gën physique ñoo gën athlétique. Et c'est une, euh, c'est une balle arrêtée couvrant de, 26-27 mètres. Wow. Euh, la numéro 8, euh, la main sous la barre transversale. Moi, moi, je fais Youfou Platini. Oui, vous Platini, voilà. Je tu sais que les gens font coup Platini. Voilà, moi, non. man, moi, je vais donner Youfou Platini. C'est ce qu'elle a marqué, un couvrant Platini. Voilà. Voilà, une nouvelle leçon. <laughs> Malal. <laughs> Ma, ma, Babacar ak Makumba. Wow comme tenir les maliennes yi une mi-temps. gisoo ñi ngi dugal suñu but vers le milieu de la première mi-temps à 26. mi-temps aller ak le Sénégal menait 1-0. 1-0 ngi Babacar Fall ak Bey le plus difficile est fait parce que comme les maliennes sont plus physiques et plus athlétiques plus match bi di avancer plus day technique. day techniques voilà. té nak bu technique Sénégal tagok ñom mm, parce que ñom bo xolé sax option bi sénégalais jël moy tek ba bi ci souf ah voilà mom la la dañoo birul am Diop indil ndjay moom la gars yi biral. mi ngi noonu mi ngi voilà mi ngi noonu. mi ngi noonu Diagne. léegi euh, nu dem ñu dem Guédiawaye. acca ah, acca nga fekki Tafa fal ak tafiru alors kon bok Sénégal men devant Mali 2-0. foot féminin. on est à la 59e minute de jeu. finale euh, zone 2 à en Sierra Leone. en Sierra Leone le stade est plein. ça c'est bon c'est une bonne nouvelle. ñu dem Guédiawaye. acca Allô? Oui, Allô? Oui, allô? Ah, bonsoir, Guédiaway. Euh, Ibrahim Oboy. Boy. Allô? Allô? Wow, mais euh, n'est-ce pas que Ibrahim Boy est à Guédiaway oui ah kon kay wuyu euh, on est à Guédiaway. Waouh, mais j'avais des soucis parce que <laughs> Malal mon et puis. J'ai pas moo tax euh, tout d'un coup ah gisuloo woon ni man la. <laughs> waaw parce mais mais mais Moustapha. <laughs> xam nga yow danga nga gis nga géejawaay. Ah. soo ma mënee wax ci biir géejawaay. ñaata sant ci nekk. <laughs> seetal Moustapha. xam nga géejawaay ay sant la yu bare yu ñu dajale mu nekk géejawaay. Ah, non seetal. Guèye a ngi ci Guèye. oui. a ngi ci Guédiawaay. Uh-huh. gay a ngi ci. oui. ja ja ja mi ngi ci. <laughs> ja ja mi ngi ci ak jaw. Ah, waaw yaa ngi may dégg. Uh-huh. dégg nga li wax ci Guédiawaay. oui. man la Guèye a ngi ci. oui. Gaye a ngi ci. Uh-huh. ja mi ngi ci. ak jaw. oui seetal ay sant la yu ñu dajale lettre yëpp mën nga ci génne yooyu sant. dëgg la de. <laughs> Moustapha Fall. dëgg wax na ñing. gis nga def ma ci woon ñing. <laughs> def ma ci woon de. ah. loolu ci ñing aussi. ñing génne nga ci ñing. waa ah, waaw. waaw mais xam nga ñing foog nga am ñaari G. ah waaw mais. ñing foog nga am ñaari G. ah waaw d'accord. alors que fii benn G fi nekk. waaw ah, man de man de man ah, am na benn ñing xam ne dama ko si doon booy bind ñing da ngay soxla ñaari G. wax wax nga <laughs> alors que fii yëpp benn lettre la. Guèye Guèye Gaye. Ja. Hmm? Hmm? ak Jaw. ak Jaw yëpp génne nga ko ci géejawaay. mi ngi <laughs> pare nag xam nga fu mu gënee dal. jaw uh-huh. bi moom dafa seere ñëpp a dend. gis nga de. Ah. <laughs> maa moom Guédiawaye. yaa ko moom Diallo. <laughs> mais fi nek ni mi-temps nañu. waaw. Euh, la douane mo mené 0 devant euh, Mbour Petite Côte. douane mène 1-0. 1-0. oui. Euh, Moussa Sow mo dougal bii bi à la deuxième minute. Moussa Sow. waaw Moussa Sow mais ci doyen. ah ce jour là Moussa Sow. ah man bon euh, am na ay temps yu yàgg yàgg. waaw doon naa wax ne moom ak Baba Sow bi nekk euh, Mbour Petite Côte. waaw ay avant-centre yoo xam ne war nañ leen a xool. oui oui parce que sur le plan local. oui oui ak benn boy di nekk aussi euh, Tëngéej. oui oui oui oui Jibi Diop. oui oui chaque match ñu dugalul benn bi suñu dugalul benn bi dinañ joxe passe benn but. oui oui c' est important. loolu aussi am na important. c' est important c' est important on va les suivre surtout nga xam ne buteur. Hein? di la fàttali beneen affaire. ah sa équipe. waaw yow sa équipe. waaw. laay Saint-Étienne. ak ak sa bos. <laughs> non yow laay jox ba pare. xam naa xam naa fi nga jëmee nag 38 ans bari na de 38 ans ñëwuñu final coupe de France ah. Hein? 38 ans ñëwuñu final parce que 15 mai le woon 15 mai le ñu joué woon 15 mai 1982. waaw. Euh, te Platini dugaloon deux buts ñu gagné ñu série penalty. waaw oui oui. Il y a ne et yoon nag moom. Eh, ah. ta euh, foog ma ñaanal leen gagné. waaw Tassirou moom kay daga daan. Hein? yal na leen PSG seexlu. waaw loolu la de. yal na leen PSG seexlu seexlu. moo ñu doole téeméer yoon fi ñu toll nii. lu mu ñu dóor championnat du 6-0. 5 5. 5-0. Mhm. waaw mais ah, attends ah, Paris door na fi saint etienne 6 aussi de. 6 6 euh, door na ko door na ko 5 door na ko 6. ah baax na daal. mbaa du 7 bi yoon. wala wala wala ñu wàññi boog def 4. non non non mu nekk 6 5 4. yoon ñun ñooy gagné. ah en quoi cas doy na waar <laughs> doy na waar Diallo. alors euh, donc Ablaye. Euh, le temps du but de Moussa Sow. Euh, à la deuxième minute. Deuxième déjà. Moussa, oui, euh, les mouroirs ont été créés à froid. Oui, oui. Stade Boy. Oui. Moussa Sow qui permet à la douane de mener à la deuxième minute. Mhm. Un but à zéro, c'est la mi-temps. L'arbitre vient de siffler la fin de la première partie ici au stade Ibrahim Boy. Oui, euh, mais, mais dans la laaj bal nga Oui. Quand moi Ibrahim Boy? Ibrahim Boy fut un ancien maire de, de mhm. Alors, c'est en réunion de conseil municipal que le feu maire euh, Chérif Makissal avait décidé euh, en réunion, à l'unanimité, que mm. les conseils ont décidé mm-hmm. de donner le nom à euh, Ibrahim Boy. L'ancien maire de Guédiawaye. L'ancien maire de Guédiawaye. Voilà. Bah, oui. C'est bon. Mm-hmm. C'est bon, c'est bon, c'est bon d'avoir l'information. Elle est importante. Oui. Au lieu de parler de Ndiarem, Wow, <laughs> voilà ah tu vois c'est important je préfère Ibrahim Boy parce que njaareem waa ji am na ku ma jël taxi jëm jëm Diourbel. dafa dégg information bi à njaareem. mu jubal dëgg la. <laughs> Moustapha à tout à l'heure j'ai le temps de prendre Soda pour quelques résultats sur le basket Soda. oui Abdoulaye. voilà je reviens. oui. Euh, donc retenez que le Dakar Université vient d'enregistrer sa deuxième défaite de la saison. Oh Après avoir perdu face à l'UGB 76 à 79. Ah euh, Bob aussi a battu USY 60 à 56. Ah Et Salim Maximus qui perd devant l'ICB de Dakar 64 à 74 à Oh Merci Sodaï. J'ai le temps de prendre Youssouf Boyan avant le journal. Pour rappel, Tenguet à la mi-temps mène devant Seneps 1-0 but de euh, Baye Djibril euh, Diop. C'est aussi la mi-temps à Guédiawaye, Stade Boy, où mène devant Bourg petit 1-0. But de Moussa Sow. Euh, Youssouf, à Amadou Bari, y a-t-il au moins un but chez toi Non, pas encore, <laughs> euh. Alors, euh, donc je te donne des buts. C'est le Sénégal qui mène devant le Mali 2-0 à, Freetown. Ah, superbe nouvelle emploi. Voilà, pour la finale des filles, filles football, football féminin dans cette équipe du Sénégal, euh, si vous vous souvenez, Abdoulaye Diaw, euh, lors du match euh, des éliminatoires de la Coupe du Monde U20, j'étais là au stade, je pense, j'étais au stade de, de Pékin. Oui. Il y avait une certaine Abibale. Oui. Balde qui tirait très bien les coups francs. Oui. vous vous souvenez. Oui, oui. J'en parlais la dernière fois. Très, très bien. elle est dans cette équipe du Sénégal. Oui, oui. Elle a même démarré le match aujourd'hui et elle est également dans l'équipe des u Est-ce que c'est pas elle qui a marqué le coup franc, le deuxième euh, Parce qu'on me parle, tout à l'heure, Malal m'a parlé d'un coup franc platinien qu'une euh, des Sénégalaises a fini par placer dans la lucarne du but euh, malien. En tout cas, je l'ai vu capable de, frapper des coups francs sur 40, 50 mètres. Ah, c'est peut-être elle. C'est peut-être elle. Et euh, pour, en équipe nationale euh, A, elle porte le numéro 11. Ah. et en équipe nationale U20, euh, c'est elle qui porte le dossard 10. Le 10. Ah, c'est peut-être c'est peut-être elle. On en aura tout à l'heure d'autres informations. Effectivement. Notez qu'ici, entre Dakar Sacré-Cœur et le de Sport, c'est zéro partout à la mi-temps. Mi-temps. Et moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est cette euh, colonie euh, de supporters de Dakar Sacré-Cœur. On n'avait pas l'habitude de les voir autant nombreux euh, au stade, mais également ils font beaucoup de bruit. Euh, les euh, supporters de Dakar Sacré-Cœur ils ont en ils font euh, <laughs> ils se portent pendant 45 minutes et ça donne la réplique à les Casa et ça donne une belle ambiance ici au stade Amadou Barry à la mi-temps 0-0 entre Dakar Sacré-Cœur et l'équipe du Casa Voilà, les supporters organisés en groupe d'Asico si ce n'est pas constitué par des parents et des amis, c'est peut-être un groupe en location parce que ça peut arriver voilà, aller prendre un groupe en location, animer le temps du match sous la bannière et les couleurs euh, du club euh, engageur. Donc, euh, en deuxième division, on joue aussi. Africa Promo Entente Fatigue, c'est à Sali, Stade Fodewad. Euh, on joue depuis 16h30. À Fatigue, Massensen, euh, Diamono Fatigue reçoit Amitié Football Club de Thiès. Euh, là, il s'agit des deux matchs de la deuxième division. Les autres euh, auront lieu demain. J'ai le temps euh, bien entendu di euh, euh, revenir alors ma ñëw ci xabaaru tis bi nga ni RTS le caméraman Doute Fall caméraman RTS mom lañ ma yëgal ni dafa génn adina démb denc nañ ko ah auditrice bi madame Sey mam Awa Cheikh Ndiaye euh, di wettali kook radio bi di wettali kook télévision bi radio beeg télévision bi euh, du tàggoo ak moom ci biir këram di xaritu Marie Justine Diogo tey muy joyeux anniversaire muy anniversaire Marie Justine ni ma suñu xarit bi Ablaye foog ñu gunge ko ma ko sax tout de suite wari ko gato gato bi naaw ba fekk ko ci euh, voilà kon Amadi tu as une poignée de secondes du journal de 18 heures amuloo publicité yooyu jàlle waaw kon euh, ma téye tuuti wala ma jox la ma téye tuuti voilà kon ma téye tuuti parce que à ce niveau yéenay commandé ah technique bi bu ngeen soxlaa euh, du ñu def lu dul ni ni pat Tassirou Diallo danaa ko soxla tout à l'heure ci benn sujet d'actualité Tassirou Diallo ah Youssouf Youssouf Dabo demul en Arabie Saoudite parce que clubam Tëngéej daf ko soxla simplement parce que mon entraîneur Tengue qui est aussi entraîneur ou équipe junior Du côté Bobu, faut ñu nous faire en sorte que euh, les intérêts de l'équipe nationale soient préservés euh, d'autorité c'est tout aussi vrai que le club est payeur mais du côté si nous avons un club buy nulal équipe nationale pas wàññi nationale, euh, comme on dit il faut doy nous ba tax parce que Youssouf d'abord a mon situation bi temps bi entraîné Guédiawaye nous na am bii situation ba boobu mujjoon na dem ba amoon sax dogal bu ko ci c'est tout aussi vrai que qui paye commande on y reviendra tout à l'heure Seydou Nourouba, jërëjëf euh, Amady Ndiaye kon damay dellu si ci Ibrahima Ndiaye Chita mi ma joxoon information bi nga daf ci waddal brassaram kon capitaine waddal nga sa Ibrahima Ndiaye Chita parce que ma jox ni moo génn àddina du kooku kooku daf la jox information bi Doute Fall moo la jox information wu ni Mamadou Seck dëkk Wakaam man de moom laa xam Mamadou Seck euh, xam naa ko bu baax yàgg nañu liggéey ci RTS dëkk Wakaam Mamadou Seck euh, di woon caméraman yàgg ànd ak sportif yi ci stade yi ci diggante Jérôme ak Oumar foofu yëpp ànd na fa ak ñoom Mamadou Seck dëkk Wakaam bëgg sport ba tax na ci euh, kii bi

Imam la fa di won kilifa ay caméraman yu bare xamna ko bu a baax a baax fal defena sax Grand Yoff parce que Grand Yoff fa mom euh bi ci euh, Grand Yoff fa kon Mamadou sec mo genn di caméraman ci RTS gañu demb ñu denc ko demb ci wakam gi nga fa la kon di toute la famille de la RTS di tout di la ko jaal yow Ibrahima Ndiaye Chita euh, ki ki ki ki la jox information bi nag moo di Doudou Fall Doudou du moom moo génn àddina Mamadou sekk moo génn àddina kon dama koy jàll nag Doudou Fall parce que euh, du Seck mii génn àddina nekkoon na ci kilifteefu Doudou Fall mii nga xam ni kilifa la woon ci biir RTS kon may may may may jégalu ci Doudou Fall waaye nag gudd fan la. ah tàggee ku génnul àddina nee nañu gudd fan la tegtal la tegtal la bu nga xamee ni gudd fan la kon du Doudou Fall Mamadou Seck caméraman moo génn àddina dëkkoon Wakaam ba nekkoon retraite ci RTS démb lañ ko denc ca Wakaam di jéggalu ci wetu auditeurs yi Chita nag yow tey ji sa bar ca brassard bi wadd naa te foog foog nga nga dellu cinquième division pour foraat pour dellu si pour foraat ko kon di ànd ak yéen ci programme sport bi Euh, fichi radio future Futur Média di fàttali ne ce n'est pas Doudou Fall c'est Mamadou Seck caméraman moo génn adina euh, ci RTS de mon sax retraite di ka dial toute la famille euh, de la de la de la de la communauté. alors kon di ànd ak ci programme bi ci bir programme bi doomal Sénégal Mali fu tollu nga laajal ma gars tout à l'heure c'était 2-0 laajal ma Malal fu tollu Malal ngay suivre ci final bobu nga xam ne di tournoi zone 2 bu jigen ni euh, Tibir Stadi on rappelait tout à l'heure on rappelait tout à l'heure euh, côté première euh, et deuxième division que première division Tengue m'ont mené devant Sneps 1-0 but de Baye Djibril Diop dès la 26 e minute Malal est en ligne Malal. oui d'ailleurs Ablaye. jigéen 3-0. Eh, eh, troisième bibi indi woko maka jël ci non troisième bibi gaay dañu def euh, journal ah. on a donné l'info à Seydou Nour bob au téléphone on est à la 89e minute de jeu le Sénégal mène par 3 buts 86e plutôt voilà 86e 86e le Sénégal mène par 3 buts à 0 3 buts à 0 voilà mais euh, qui dougal coup franc bi waaw Euh, faram plati ñee bi. elle s'appelle Mbayang Sow. ah Mbayang Sow. parce que parce que Youssouf da Bodian dafa am kum ko fogalon. waaw. waaw dafa amee Mbayang sax. ancienne la ci équipe bi ah mo moo dugal Mbayang Sow moo dugal. Mbayang ancienne la ci équipe bi. Bodian ku wax mo yoré bal bi ni mooy numéro 10 bi. ah d'accord. ma nga takk loxo ba ba takk sakar su xonk na passement de jambe ñaar yoon. ñi ngi ci 3-0. waaw waaw ah waaw Ablaye xale mënuñu football dé légui dé affaire bi xam nga lu bëgg ñu nuru léegi euh, malal. correction yit yit wa yit wa yit la de. waaw <laughs> yit nañu waa Mali ba nu nepp. lolu moy moy yit. dé ko man la yit. yit nañ leen ba noy nooy fu mu toll nii. des na 4 minutes hein wa bu wa dess na dess na 4 minutes légui même pas sax 3 minutes déjà disons. Oh, voilà et puis et puis li ma si gën a ja li ma si gën intéressé mooy le match se joue dans un stade plein ah plan gis nga dé waaw xam nga parce que foofu euh, les pays anglophones là le football féminin est assez développé. Wow. contrairement au Sénégal le stade est plein bien donte sax on est en Sierra Leone. oui oui Mali ak ak euh, ak Sénégal nous mieux jouer. Wow. mais le stade est plein. mais Malal. euh, tout à l'heure Mangi, ngi ben sujet na ci interroger. mais doy dama dégg nga utiliser ay termes yu particulier ay coq. <laughs> mais ak yag yàgg vie hein Malal. waaw pourtant beesul dé beesul kay. laay terme yooyu moo ñu ah voilà mu ngi noonu. moo ñu mag mais malal. waaw. Euh, xam nga junior yi. Youssouf Daaba demul parce que Tëngéej mi entraîneur. mi mi muy entraîné bàyyiwu ko. bàyyiwu ko waaw. mais defoo ni lii sujet la. parce que parce que parce que bon euh, léegi bu club bi soxlaa entraîneur équipe nationale day perte parce que Malik Daf. c'est tout aussi vrai que c'est tout aussi vrai que. club il mooy fait salaire te qui paye le salaire commande. yow tey jii bu la sa papa soxla woon. waaw euh, rajo bi soxla la euh, sa papa dana leen a ligue liggéey rajo bi te wuy si te si comme moom wax ni le club a raison. Mhm. de de de garder euh, son entraîneur parce que moi il fait salaire. Mhm. Les nag c'est à la fédération de relever la barre. Mhm. pour que entraîneur bi soirée am choix def choix wu équipe nationale. parce que xam nga tax entraîneur bi du duñu du am duñu am choix wu wax déjét sen sen club yi. Ah. parce que ils sont des pigistes en équipe nationale. bon là justement dégo mané ben entraîneur kese mo am salaire par weer. waaw c'est l'entraîneur Aliou Cissé. dégo ma ni il faut que équipe nationale bi yégué bar bi. voilà.

équipe bi sombré mu joon ay coow yu bari waaw donc c'est bi même même sax le fait que ñu téye fi Youssouf Dabo. waaw euh, wax ko club am téye ko ñu bu mu dem ñu ni parce que c'est est en accord avec la direction technique. waaw am na ay équipe yu nekk ci Ligue 1 bi yo xamné ñi ngi doon pêché ñu ni ya deux poids deux mesures. Uh-huh. waaw ñi ngi doon ñi ngi doon ruer dans les brancards mais waxuñu ko ci kaw dañ wax ci suuf. waaw ñu doon ñaxtu légui nak il faut dès que lolu ñu teg ko. ah voilà wut ci solution. ah foog ñu wut ci solution. parce que le club a raison moy fay salaire. moy fay salaire te dafa avoir ambition yu yu particulier yu ñu am ren. waaw championnat du Sénégal. le club a raison. parce que daaw le gagné coupe du Sénégal ñu ni parewuñu pour dem Afrique. oui oui ñu recruter ci intersaison bi. oui oui construire une équipe capable de gagner le championnat. c'est dans la perspective d'aller en Afrique. C'est juste Diagne. donc donc euh, on peut comprendre les dirigeants du club. oui oui comme on peut comprendre aussi euh, ñeñ ñi lu ñu ñaxtu mais comme li nga wax celui qui paye commande. commande voilà gis nga Malal boo fàttalikoo bi mu fi dalé Youssouf Dabo. waaw booba mi ngi Wow. waaw si tu fais attention dafa forcé dem dem avec l'équipe nationale. Bobo, Jamil Fay, mon nekkoon président Guédiawaye. bi mu dellu see limogé wuñ ko. dañ ko limogé. ah voilà Bobo, Jamil Fay, mon moo président moo nekkoon président Guédiawaye bu mu ñëwee da ko limogé jël keneen joxe équipe bi. te Jamil Fay aussi avait raison. parce que parce que mo don fay salaire. voilà moo doon fay salaire. c'est un sujet assez délicat. mais gis nga. malal waaw tey ma déy la benn affaire mais ñëpp ñu dégg mais yow laa koy déy bu yow rek laa ko déy ah. ah maa ngi déglu kër. Eh, gis nga ci ci éloge funèbre bu Bokande. dafa am ñu ma reproché woon nii pourquoi waxuma bi ñu euh, bi Bokande provoqué arbitre bi ñu rouge que pour que mu en équipe nationale. Mhm. ma ni non loolu kenn du ko wax parce que le club paye le salaire. surtout pour sax. waaw waaw Carlo Molinari. dit président Metz de bëgg Bokande comme -hmm. ci ci éloge funèbre pour bu Si ñu ni s'était fait expulser. Mhm. pour venir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Mhm. le président messin à l'époque Carlo Molinari se sentirait trahi par Bocandé. -hmm. Mani, qui ma wax loolu loolu su ma ko

c'était encore euh, Mbayang Sow a un demi corner sortant le corner ouvert mhm. euh, mais coup franc mais corner ouvert. Euh, mu mu tiré encore au même endroit au deuxième poteau sur la barre transversale. mais cette fois-ci portier malien bi a été vigilante. Mhm. et là voilà Mbayang Sow tranquillement en train de dandiner pour aller tirer ce corner dans les ultimes minutes de cette rencontre. 3-0 pour le Sénégal. 3-0 pour le Sénégal on est dans la 93e minute de jeu il reste une minute. une minute les sénégalais prennent tout leur temps parce que nous avons gagné dañuy si vous avez na voilà Quand di ak Radio Futur euh, Média du côté de euh, je rappelais euh, que nous, ngi ci programme journée championnat bi euh, stade Ibrahim Boy euh, douane di ak euh, Mbour. Euh, tout à l'heure, Douane moo mené un but à zéro euh, but de Moussa Sow d'ailleurs très tôt ndeysaan feu euh, feu Yves Antonio aurait dit but matinal but marqué dès la deuxième minute Yves Antonio gatvan ouais waaye nag na fi liggéey ndeysaan lu ñu koy waxtaanee waaw Yves Antonio Ogola nga xamee ni pionnier ci kër gi euh, pour avoir été là dès le début euh, dès le début de la cellule euh, ancestrale, à savoir, euh, t, euh, RF, à savoir, à savoir RFM. Non, non. FM <laughs> Sport, à savoir FM Sport, à savoir SFM Sport, voilà. rappel Bibar de Tidi ci di ci coup. Yvan Antonio Ogola. Soda que je retrouve à Tenguech, ou Tenguech euh, mène euh, devant euh, Seneps un but à zéro, C'est un but de euh, Baye Djibril Diop. Il y a évolution, Soda Non, pas pour le moment, Abdoulaye C'est hum. toujours un but à zéro pour Tenguech FC. Mais seulement dire que le numéro 13 de Tenguech FC, Boubacar Sarr, est sorti lors de la première période sur blessure, Abdoulaye Oui, d'accord. côté Maris euh, oui, oui, côté Marius Ndiaye. Côté Marius Ndiaye, oui. Oui, pour la quatrième journée chez les dames. Oui. Inter a perdu face à l'ASPO, 48 à 62. Mhm. Et euh, Sermouté a battu également 5 euh, Mour euh, Basket Club 53 à 38 à Voilà, Sodetia, merci bien. Euh, qui est à Ngalon voilà, Ferru de basket. Euh, de là-bas, il s'informe aussi euh, pour le basket. Voilà comment, euh, à partir d'un point, elle arrive à couvrir les deux. Voilà, il faut aimer la profession pour le faire. Et Sodekam est de euh, ce milieu attiré par la, par la passion. Kondi Andekien Bateichi, Radio Futur Média depuis le studio de la Médina di ci euh, di fàttali ni suñu confrère bi génn àddina c'est bien Mamadou Sek, qui était caméraman à la RTS demoon mon retraite moo génn àddina euh, tout à l'heure euh, information bi ñu joxe Doudou Fall Doudou Fall moomu ñu tàggee woon moom moo joxe information bi l'information était de Doudou Fall moom laa wax ni Doudou Fall imam la woon ci biir kër gi ce n'était pas seulement le patron des techniciens c'était aussi un imam moom Doudou Fall ci biir kër gi voilà euh, un sage quelqu'un bu nga xamé ni ku ko topp doo réer moom ci ñi sagalon RTS ci mag ñi baaxoon ci RTS la Doudou Fall kon Doudou mom ci bopam sax dañ koy jaal Mamadou Seck maa ngi tooñ nga sa brassard yag nga nek capitaine mais wadal nga brassard euh, tey jii pour m'avoir donné euh, information bo xamé ni ki ngay ki ngay tagué moy tàggeelu waaw Chita dafa tagué ki tàggeelu <laughs> à savoir Doudou Fall mo don tagué Mamadou Seck Doudou Fall mo don tagué Mamadou Seck Chita jox ma euh, euh, Doudou Fall waaye nag ki tegtal gudd fan rek la waaw euh, ku de son vivant gudd fan la tegtal la kon di ànd ak yéen ba ci biir ci biir kër gi suñu xarit bi ma joyeux anniversaire De xaritu maïr Justine Diego Mam Awa Cheikh Ndiaye ca joyeux anniversaire moom laa kuy xaritu Justine day nekk suñu xarit parce que moom tamit sac la ci biir kër gi Marie Justine euh, Diogo madame Awa Cheikh Ndiaye joyeux anniversaire euh, de la part de euh, de la part de de Marie Justine Diogo sa xarit bi nekk foofu ana mu dem na sa xarit bi toog kaay kaay bindal ma fii sa sa mbokk dëkk ba hmm? kaay bindal ma leen fii kaay kaay wol ma ko le temps may ci biir stade bi kaay sa sa mbokk mi toog foofu kaay kaay jeune homme toggal nii yow xaritu rajo bi nga ah, foo jógee nii. géejawaay ah géejawaay nekk. waaw looy wax waa géejawaay na nga tudd. Aliou Diop Aliou mhm. euh, euh, indi ci biir RFM nii. ci sama gars yi ñoom Amady voilà ñoom Salif. ah d' accord Makumba ak Babacar Fall ñoom waaw ñooñu day ku leen seet si nag daal di ku ku a jóg. <laughs> nga daal di am droit ci biir kër gi. yooyu tam waaw vraiment doyen bu baax nga dañ lay déglu saa su ne. oui na nga na nga tudd. Aliou Aliou Diop Aliou Diop léegi looy wax waa Guédiawaye Aliou. waaw maa ngi leen di nuyu te di wax leen nag ñu waajal suba GFC ak Sonacos. G équipe bu mag bi. ah Guédiawaye Guédiawaye football club. <laughs> waaw ak Sonacos. ñu waajal ko suba. waaw ñu jëlaat ndam li rek. gagné championnat bi jëm ligue ligue 1. ah d' accord waaw loolu laa leen wax ñu waajal ko ñoom ñëpp dañ génn gunge équipe bi. géejawaay waaw dégg loo may tooñ léegi waa géejawaay ni leen géejawaay ay sant la rek yu dajali ko. waaw Guèye a ngi <laughs> a ngi a am na ku envoyé benn message sax tout la l'heure ni ma yàdd a ngi mhm. waaw. <laughs> dëgg la ah, a jox nekk ci diggu dëkk ba. Mhm. dafa mel ne ko ci sant Diaw moom géejawaay <laughs> waaw niru na ko nag xam naa yow moom loo fa bëgg moom ah. mën nga fa am ci lu yomb. voilà Diop di nuyuwaale waa Saloum tamit sama waa dëkk. ah fan fan ci Saloum Ndiobène Tallène Ndiobène xam naa ko mu ngi nekk booy dem Ndofane da ngay bàyyi yoonu Ndofane bi jël yoonu ko Madiabel ñëw Lamaram dugg Ndiobène Tallène yow na ko waroon nga fi fekk Ami Ndaw tu à l'heure ah, Ami Ndaw xam nga ko bii def communiqué yi doomu am di Moustapha Ndaw ah ok am di Moustapha Ndaw ba nga daan dégg ci rajo Kaolack waaw waaw moo tax ma la waroon nga ko ndeysaan romb doon fii sànq voilà mais xaw ma ci loolu doomu am di Moustapha Ndaw mat naa bàyyi sim réew jërëjëf Diop <laughs> jërëjëf ñun ma mbokk ñun ma mbokk Géejawaay waaw danañ ko dégg waaw ñun ñëpp waaw ñun ku ñu sopp dañ lay jaaw incha allah <laughs> merci jaajëf merci Diop voilà je retrouve Malal Diagne Malal. Diagne lay Sénégal jël na 3-0. Oui, oui, oui, ci dara. ah oui kenn waxatu Sénégal ba Mali finale euh, UFOA. voilà UFOA euh, A. UFOA A. 3-0. match du 3-0. voilà. voilà donc week-end, neex na ci football Sénégal. ah tu vois hein. am ñaari coupe. waaw am na solo léegi nag nañu nañu jël téere yi ñu téere ndam yi ñu gàddu ni jox ko mag ñi waaw ah, waaw ndax ñun tam nu indi kaan bi incha allah waaw loolu moom tubarkàlla yéene la boo xam ne fa mu sotti lii raam ci kaan bi la jëm de waaw ci kaan bi walaay lii raam ci kaan bi la jëm léegi loolu may wax ci kaan bi la ci kaan bi la jëm mu ngi noonu doy yeb lay xale ma paas la Bodian mu ngi gëjëwaay